mbooleem sénégalais yi ak sénégalaises yi di sant jullit yépp aussi li am solo mooy wax bu nekk bu jógee dafa am kenn ku nekk noo ko gisee moo tax bi nga xamante ni wax ji bari na ma ko si ak ki nga xamante ni mooy xalif général de Mouride di ko ñaal mu yàgg fi te wér jégglu ko si kàddu yi nga xamante ni jóg na déplacé wu tey ñëw Touba siyaare si Ahmadou Bamba siyaare samay waajur leeral population bi nii man bu may wax dafa am lu tax may wax delluwaat si wax ji sax amul solo comme que murid yëpp maanaam am na nu ko gisee ak yenn kilifa yi maa ngi demaat ñëpp ñu jéggal ma te xam ni ni ñu ko gisee bokkul man ak ni ma ko wax waaye li am solo rek mooy jéggalu Serigne Touba mi nga xamante ne mooy sëriñ mun taxa te xam ni man ab taalibe la man sama maam lu am si taalibe loo ko am ba tax mu gàddaaw yoon fekk si Ahmad Bamba gànnaar sëriñ soxna fajjam yi sama maam nekk taawu sëriñ Touba kon mënuma wax si yoon lu ñaw c'est que da si am ñoo xam ne dañuy profité ci wax jooju noonu pour bëgg yàq sama image ak sama der te ay politiciens la yoo xam yenn yu yu nëbb lan yenn yu feeñ lan mais en tout cas askan wi ak bur yi nañu xam ne man fi ma toll rus naa di def wala luy wax loo xamante ne dafay gàkkal yoonu murit wala muy gàkkal xalif san remor bi nga xamante ni ban ma koy jox mu di ma jàngal xale bu ndaw laa di mu yóbbu daal Minam Saloum di mu boole ak ak njabootam boobu Daaru Minam Saloum sax amagul courant bi ma ko jox ko moom ci guddi gi bi may ñëw Touba bu neexee yàlla incha allah comme maa ngi euh, Touba moom mi ngi poroxaan dafa wax ma xaar ko fii Touba fi laa koy xaar ba mu ñëw ma dem jégguluwaat yees laa sama njëbal ci moom te xam ne moo fi Seex Bàmba